ألا إنني وزني على غير ملهم ولا أتكل mbokk taalib yëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew te ndokkeel ñëpp ci weeru tedd yi nga xam ne tàbbi na weeru safar di suñu weer nga xam lépp lu ñu am ci lañ ko am ndax sëñ tubaa nee lépp am ci ko am te ñun suñu amee lépp ñu nga amee ci amee lu sëñ tubaa googu kon alhamdulilah ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp di ci ziyaara ñëpp itam te di ci baalu àq ñëpp itam di ñaan suñu borom kattanal ñu roof ñu wër may nu talak fekke ak xéwal yu li ñuy yéenee liggéey sëriñ bi ci bis bi danañ ko am yaakaar naa ne ko gis bis bi ni mu demee ay ndaw taxawal ko ànd ko waa dëkk bi yëpp nga xam mën a wax ne sëñ Tuubaa daal ah, dañuy wax ne jërëjëf sëriñ bi lam ñu waxoon lépp saa su ne day day gën di dëggu waxoon nañu ko bil yow mi yum si ni yun umu si kasa bi xat sama tey juna daf may fàttaloo sama démb waaye ku ne xam ne ne bi ñu indi sëñ Tuubaa fii ci barab bii mu def mbaaram mi fii jumaa ji nekk tey commandant bi ñëw ni nañ dindi mbaar mi ah defe naa wati naag tey jii 1912 téeméer at ak léegi maire bi toog ànd ak tànkam jox ànd ak mboola mi ma ne defe naa ne loola tey wane nañ sëriñ bi daal léppam kanam la jëm waaye amul tànk gannaaw kon alhamdulilah rabbil alamin doxin wi rafet na Pastef bi mat na sëkk yal na leen yàlla fay yal na ngeen daje ngërëma sëriñ Tuubaa képp ku fi mën a jege dégg naa fi ñu jógee sar saaraaj ndakaar ak fu ne waaye man sëñ bi jar na lopp loolu sëñ bi moom digunu dafa ñëw wan jox na lim ñu jox ba yoman tey sax mu neex kon alhamdulilah ñu jaajëf sëriñ bu baax la ci topp nag mooy ginnaaw xaar bi yàgg na dox bi metti na booba tey ñaa ngi dox guddi na itam te kàddu yi jël tam bari na du wax du mën a gudd damay bàyyi la xel rek ci loo xam ne sëriñ bi waxoon na ko te yàgg na sëriñ bi daa waxoon ne wa min makaidi làyni almujrimi saddul muridina an taalumi bokk na ci pexey seytaane dox diggante taalibe yi ak xam-xam mu kon loolu defi la bu nekk suñ kanam sëñ bi xamoon na ko feeñaloon nag ndax bëgg buñ ci ñu del suñu matuwaay ba loolu du du nu kon nag defi boobu mooy fexe ba seytaane dana dana dem ba jëmmi jamono woote sëriñ bi sëñ bi ndax daa sëriñ bi daa wax ne law alima naasu maanaa la baadaru ila talabihi walakin lama jalahu lama jahilahu talabu xayrahu bu nu ñu xamal li ne ci man kon ñëpp dañuy da wuti ko waaye biñ ko reeree la ñuy wuti leneen daal mel nag léegi nit ñëpp xam nañ wala bokk ñi ngi xam si ñaa ngi daw di ñëw kon nag nañu bàyyi xel ne seytaane tam mi ngi saxaw temm te liggéey bi gën a rëy mooy fexe ba dox sa diggante nit ñi alhamdulilah nit ñaa ngi xam seen waaye ba tey des na wooteeb sëriñ bi ma ne ba tey des nañu nañu góorgóorlu fexe ba sàkku xam-xam ci anam yëpp fexe ba mën a càmbar. doxinu sëriñ bi ak liggéeyam ak mag ñi ni daan doxe ak ni mu daan dunde ba mën koo gën a jàllale mën koo gën a tasaare ci àdduna mën a gën a dund dëgg dëgg li nga xam ne moom la sëñ bi doon woote loolu ndax kat sëñ bi yoon waxoon ne bokk na ci pexey seytaane mooy dana dox diggante sama taalibe ak xam-xam kon loolu défilé boo xam ne mi ngi suñu kanam na ci ñëpp bàyyi xel ci ne seytaane dana fexe ba dëdd ko ñu baree tey boo xam-xam wala nga di ci góorgóorlu sax ñu defee ni kii daa gëmut wala lanaan ak leneen di di di waaye fal jaam yàlla di waaye fal yu bëree bëri yoo xam ne sëñ bi da koo tegoon ci kaw fonkoon ko lool alxuraanu karim ñu bëri léegi li ñuy wax ay ràkkal yu kenn xamut ak yeneen yu bëri yoo xam ne sëñ bi da koo fonkoon dundam gépp di alxuraan yooyu nit ñi dañ koy bëgg a wayefal ndax ñàkk xam dëgg-dëgg loola kon rek défi boobu nee suñu kanam sëñ bi waxoon ni seytaane dana jéem a doxi seen digganteeg xam-xam nañu fexe ba jàng loolu daayira yi am nañ ci wàllu muy daayira yi nañu fexe ba ci biir daayira yëpp ñu sos fa njàngum xam-xam wóor a wóor a wóor loolu danañu dimbali ñu gën a xam li ñu sëñ bi doon woo la te loolu rek mooy suñu njëriñ fexe ba nekk dëgg dëgg dëgg taalibe sëñ Tuubaa waaye fexe ba jàllale ko itam nag ndax li sëñ bi nekk moom ku ko xam xaw ma ko xamut waaye ku ko xam di nga si ñëw kon nag loolu ñu bàyyi ko xel bu baax sëriñ bi waxoon na ni fa saari'u lil ilmi li waj ajmaina li waj sil jëlaali xaasidina maa ngi leen di dénk ngeen gaawantu yéen ñëpp jëm ci sàkku xam-xam yéen ñëpp ngir jëm yàlla ci mu ne nag xable tasadduri wal infiraadi bi nafsi wal adbaayi fi tamaadi balaa ngeen a jóg di beru di woo kenn moo xam wala ngay jóg naan da ngay jéem salal yow sa bopp baa ngay wut mbooloo mu ne fexeel ba xam ba noppi kon loolu li indi tey li xaw lépp ci yoon wi te ñu ñëpp ñu xam ko dund ko yu bees xaw yëpp mooy dañoo gaaw ci beru gaaw ci woote wu suñ bopp gaaw ci sellal te fekk la ko waroon jiitu mooy xam nga dëgg-dëgg ana lan la sëñ bu doon lan moo ko tax a jóg dégg nga li mu doon dund lan la li mu nekkoon te mag ñi gis ko bàyyi tax li bàyyi seen i kër bàyyi seen i ndey bàyyi seen i bàyyi gàddaay ñoo fekk si loola lam la des nañ ko xam kon nag loola war nañoo gaawantu ñëpp fëx wuti xam-xam loolu rek moo nañ ci mën a dimbali ci ñu mën nag dëgg-dëgg taalibe Serigne Touba ndax li xew léegi ci fonkane gi diine ak sàggane gi ak jëlaat yeneen mbir yoo xam ne boo koy xoolaat day mel ni lii du la sëñ bi indi woon donte poste bi moom ak xër gi moom am na waaye kon yooyu kon ñu bàyyi ko xel bu baax sëriñ bi daa waxoon ne izulumaatu bidaatu ixtiqaati te ko fa anwaari i nee na lëndam gi nekk ci topp bidaa ak yu dul noonaan loolu dafa am lëndam gu ci nekk loola bu nekkee ci yow mooy mooy fekk ba leer leer leeru jaam yàlla jaam yàlla topp yàlla dafa am leer gu ci nekk nit ki nag saa boo xamante ne dafa nekk ci topp bidaa gëneen a gëneen ah, ak ñàkk jaar ci yoon lëndamaay boobu moo koy yiir ba leer gi waroon na ñëw ci muy topp yàlla du mën a ñëw ci moom moo tax sëñ bi noonu kon da gaawantu yéen ñëpp daw jëm ci xam-xam buñ ko defut luy am la amoon bi sëriñ bi di feeñ ndax sëñ bi dafa am yu xewoon tax mu ñëw bi mu ñëwee itam bind na ko wane li xewoon ci jamonom hada wa innama alayhi al muxtafa li kasrati al jahli ala nnaas sëriñ bi nee na leneen bi sa sam doon dund nee na réer gu réer bari tax na ba kenn xamatu ko sànk dégg nga wa tabiatha siratu saxaaba sawil huda wa nóoru bil ijaaba nee na doxinu sahaaba ya ak njubu gaa yi bàyyi fi nekkoon moom it topp na jëkkam xamut ko lu tax mu ne li kasrati jël réer gu métti nit ñi wan gannaaw xam-xam jël yeneen teg ko seen kanam gannaawal xam-xam dal doolu gannaaw loolu moo amoon ba ñu dem ba jamono yi sëriñ bi feeñ nga xam ne bu feeñu toon dara duñu jar sëriñ bi feeñ ngi dellu suwaat leen du saa sam na mu doon dunde waaye saxaaba ya waaye gaa yu baaxee ndax lii di yoonu yoonu murid yoonu tarbiya dafa raafoon sëñ bi dellusiwaat ko moo li yent bi doon dund rek ak saxaaba loolu nag bu fekkee jëluñu xam-xam def ko muy sunu lépp dañ delluwaat ci réer googa kon nag maa ngi la ci maa ngi ciy bàyyi bàyyiloo xel ñëpp sëñ bi tegoon na ci sax ni suma talaahuma huda suyuuxi sawi tuxaa wal almi waru suuxi ba leen saa sam dem nekkoon demee doxinu saxaaba yi toppati njubu gaa yu baax yi toppati ah nee na sëriñ si ñu baax ñu fi nekkoon ñoom itam la ñu nekkoon gannaaw jàngatuñ ko seetatuñ ko càmbaratuñ ko moom it da cee topp ñu itam bu ñu sàgganee dara li sëñ bi nekkoon ñi mu juróon ñi mu yoroon mu binoon ko bàyyi ko dana réer te kon bu baax musiba dana dal kon nag nañu fexe ba xam moom ñu jiital ko ci lépp mboolem dawaayir yi fu ñu mën nekk ñu fexe ba tout tànk ñu leen di jàngal ñi nga xam ne wees nañu. yor ay téere di jàng ñu fexe bay amal ay ay jataay yoo xam ne jataay xam-xam lay doon ngir gën a càmbar gën a seetaat bu baax njàngalem sëriñ bi ana lan la sëriñ bi doon dund te loolu boo ko bëggee xam dellu rek ci ñi mu jur ñi mu yar li mu bind foofu laay taxawlu maa ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di ndokkal ñëpp ci weeru tedd wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba ñu ngi sant yàlla bu baax. di sant sëñ Touba di xamal ni tey jii lii ngeen def tey ñu di sant sëñ Touba ñaq di dox presque lu mat dix loolu mën naa wàcc mën naa wàcc sëñ Touba du réer son nañu ngir sëñ Touba ndax lu mu ñu defal mënuñu ko defal ki nga xam ne bu la boo ko lebalee kër mu fay la guddi kon tey nii ngeen bàyyi seen yitte yëpp ngir ñëw bis bii tey muy bis bu njëkk ci 18e safar ñu ànd ko ak ñun di ko dox ànd ko ñoom Cheikh ànd ko ak kuréel bi di sant sañ tubaa yàlla nañ sañ tubaa fay. kon di xam ni kenn ku ne bu amee bisam bu mu ko xeeb ñun amuñu lu dul lii amuñu lu dul sëñ tubaa at bu amee bu ne billaahi wallaahi na nit ñi bàyyi seen yëpp ngir sant sañ Touba ndax bu doon moom njaareem du am kon dinañ leeral den birneel ni sëñ Mokhtar wax na ko léegi di ko nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam. moom commandant bi dañu woon mbaar mii nañ ko fi dindi tey fa commandant toogoon yilifoon njaareem di bind di buur di bimbi di def tey seen dong seen taalibe Malick Fall moo fa toog tey jii nekk ci suuf sëñ Touba toog ci kaw kenn du moom sëñ Touba fa mu newoon na fa tu na fa na mbaar ma jóge tey mën naa leen xamal à partir d'aujourd'hui dinaa waxtaan waa kuréel bi ñu waxtaan dinaa lettre ba mu bindoon naa bind beneen lettre ni bis bi nañu ko def bis sëñ Touba bind ko arrêté ko barke sëñ Touba sëñ Touba rek la kenn du moom daaw ba may ñëw fii di mars day na ma wax loo bëgg ma ne maire laa fi ñëwee barke sëñ Touba bu déwénee bu may fi ñëw yàlla naa fi ñëw jol saq takk xapp député ànd ak gaañ di dox tey député la barke sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balaax te di leen baal tey ñaan yàlla bala ñu jéggal ñu ngi ñaanal a Cheikh Sidil Mokhtar mu yàgg fi lool te wér di nuyu mbooleem sëti sëñ Tuubaa yi teew ci barab bi tàmbalee ci sëñ Abdul Hakim ak mbooleem ñi fi teew di nuyu di ziyaar imam Diop ci kàddu yu pasteefu yooyu te tegee ci njàngaleem sëñ tubaa te mooy li tegee ci sunna ñu ngi nuyu sëriñ Babacar Faye mi nga xam ni moo dox jokkale gi diggante kuréelu Saar Saara yaatal liggéey sëñ tubaa ak kuréelu benn fanu safar bu njaareem ñu yàgg dégg nag doxin wi waaye tey yàlla dogal ñu gisal suñu bopp mbooleem lu doon dégg am nañ ci lu kawe suñu njort ñu ngi ànd ak délégation boo xam ni sëriñ Xaadim ñi ngi mi ci bokk dëkk njaareem di liggéeyal Ndakaaru ak sëñ bàcc ñi dëkk njaareem di liggéeyal Ndakaaru ak ku ñu wax Abdou Fata di d'origine portugais nekk France tuub gëm sëñ Tuubaa di ko liggéeyal ci wàllu yaatu ak sëñ Fàllu Ñang ak ku ñu wax sëñ Fàllu Mbuub ak soxna Awa Sey dañu ñëwoon rek nag ngir bokk ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu màgg la di liggéeyal sëñ Tuubaa ci benn fanu safar waaye ñu ñëw leeral leen liggéey boo xam ni ñun ak yéen ñoo ko bokk ndax Sëñ Tuubaa bi mu jógee ci géej gi gànnaar luñ ko yóbbu bi ñu ko yóbboo gànnaar def na fa ñeenti at bari na fu mu jaar ci gànnaar dëkk yu bari mu tudd ko waaye benn place la ca wax wax joo xam ni moo tax dëkk ba am mbayre muy sar saarak sëñ bi wax na ko léegi inna lazina ila sarsara xat xasadu ziyaarati faaraqu daaril awzaara sëñ tubaa nee na ku dox ba ñëw foofu tàqalikoo nga bàkkaar àddina ak alaaxira sëñ abdul ahad daa waxoon ni loolu du xaas waaye am la ba suñ jonn yàlla tey ku dem sarsar dugg ci biir bayit boobu ñuy dem ba ci jamonoy Cheikh Saliou Mbacké état bu Mauritanie titre foncier un kilomètre carré ñu def na ko àddee sëñ tubaa muy place bi nga xam ni fële Sëriñ Tuubaa jotee àll wér du maa nga xam ni place bu spéciale la ci biir àllu gànnaar bi ak jullikaay bi nga xam ni fële Sëriñ Tuubaa doon jullee ak kër gi nga xam ni fa la doon dalal sorofaaw yi gànnaar googu nag doomi sëñ Mourtala di ñuy wax sëñ Sidi Mbàkke moo fa nekk ak mbooleem taalibe yi ñun ñu teewal ko Sénégal di coordonner liggéey bi liggéey boobu bii passé moo nekk douzième édition bii ñëw mooy nekk treizième édition réew mi yëpp gox bu nekk am nañ fa cellule boo xam ni bu dem jotee ku am juróom-benn junni soo ko joxee dinga ci dugg bis jaar ci Louga ziyaara sëñ Sàmbay jaar ci Saint-Louis añ ci Rosso dugg Nouakchott am fa ñaari fan gont fa dem saara sar saara dellu siwaat dugg ci inna lazina ila sar saara xat xasadu kon ñu xamal leen bis ñi ki tey njaareem bokk na ci cellule yi sëñ Babacar Faye mii lañ koy teg ci loxoom ak seen Aliou Ba ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci liggéey sëñ Touba numéro boobu ñu joxe ko rek ñenn nat bu ñu ko jàppee mënu ko woo jokkoo ak moom muy 77 656 73 46 liggéey boobu nag sëñ Touba moo ñu ci dugal bu ko defee ñu ngi ci woo mur yëpp dinañ ci xaar bëgg nañ itam. bu ngeen ñu ko nanguloo kuréelu sar saara ci ndigalu sëñ sidim sëñ murtala mu lëkkaloo kuréelu benn fanu safar gii lépp lu ngeen xew ña nga ca ñu nit lépp lu ñuy xewle ngeen nekk ca ndax foog naa ne dara du ci génn sëñ Touba kon maa ngi wax ni état bu Mauritanie ba mu titre foncier suuf soosu dafa ni Murit bu ngeen investir dara ci sar saara dinaa leen dolliwaat ndax Mauritanie réew moomu réew mu dëggal sëñ Touba la ñu daaw jiite naa fa plateau boo xam ne plein désert giiru naar yëpp wër ñu naar yi nañu ñun dey am nañu ay sëriñ gëm nañu leen bëgg nañu leen te ci ñoom lañuy ñu aju waaye gëm nañ ni li yàlla may seen sëriñ Cheikhul Khadim may ko ku yàlla bind réew moom ñëpp ñëpp d'accord ci Sëriñ Tuubaa moo tax boo duggee ci musée national naar yi def nañu témoignage boo xam ni danga naan ndax nit ku weex dana bind lii ci kaw nit ku ñuul waaye bari na ci giiru naar yoo xam ni gàdd yoo xam ni dañoo dégg sëñ Tuubaa ci xam-xam dégg ko ci sunna xamuñu fu Sénégal féete koo ci woo mu ne la ñi ngi tudd Abdou Lahad Souhaïbou Moustapha Serigne Fallou sëñ Tuubaa rek la gëm te ci xam-xam rek la koy liggéeyal naar yooyu ñoom ànd nañu ak ñun ci liggéeyu Sarsara kon nag bis ni ki tey njaareem nañu xam ni Sarsara bokk nañu toujours nag gannaaw Korité lay doon quinzième jours après Korité ñu jël ay bis def délégation dem Mauritanie ziyaara barab bu tedd boobu nga xam ni boo fa duggee rek yëg leeruk sëñ Tuubaa ndax suuf si ni ma ko mën a misaale fii ba ndakaaru suuf si daa xonk cur waaye 4 mètres carrés yi nga xam ni moom la sëñ Tuubaa jotee àll wér du suuf si daa weex tàll boo fa duggee lu mu tàng tàng foofu day sedd suuf sa xeeñ xun nag parfum kon loolu misaal la kon ñu ngi ci woo murid yëpp di ci woo taalibe yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jéggul bu baax ci guddal gi ñi ngi nuyu aussi monsieur le maire dañu ko fàtte woon suñu xel moo fàttu li mu def kontaan nañ ci te it ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk garatam te jàppale ko bu baax a baax ndax wane na ni moom Sëñ Tuubaa lay liggéeyal moom la gëm moom la bëgg te Sëñ Tuubaa képp ku ànd ak moom da nga ci war a fiyaar waaye itam imaam Diop kàddu yi mu yëkkati man daf maa daaneel ndax daf ko teg ci xam-xam tegaat ko ci cosaan tegaat ko ci li nga xam ne mooy njàngaleem Sëñ Tubaa wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu Sëñ Tubaa ci toolu na la nekk kon kuy liggéey Sëñ Tubaa foofu nga war a nekk yi bees yi xew nag ñun ñëpp ko gisandoo kon nag ñu ngi wàcce suñu kàddu foofu bàkkaar yi bari na te Sëñ Tubaa nee na ku dox ba fekk ma foofu yàlla tàqali la bàkkaar àddina ak alaaxira asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala seydina mawlana muhammadin nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa umatihi wa sallim barkeb cheikh ahmadou bamba xadimu rasulillah sallallahu alayhi wa mbokk yi ñu ngi sant sunu borom bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di yeesal sunu njëbbal ci cheikh ahmadou bamba xadimu rasul di ko feddalee ci sunu bunt ci moom muy boroom borom daarul moxti di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ñaanal a Cheikh Sidil Mokhtar xalifatul am li tarixatil muridiya sunu borom yàggal ko fi te may ko wér ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp ak mbooleem taalibe yépp di jiital ci nuyoo bi kilifa ak jotaay bi di Serigne Abdou Akim Mbacke di sunu mag di sunu xalifa di sunu wëllëre waaye bopp solo muy sunub sëriñ ndax yoon wi li muy yaatu yaatu yaatu mbokk li muy baax baax baax ak taalibe ko gën sëriñ tubaa dafa toog bis ak mbooloo ci taalibe yi ak aw lim ci ay mbokk taalibe yi féete nii mbokk yi féete nii mu ne taalibe yi na ngeen ma moytu ci sama mbokk yi bu baax ndax ñoom day man rekk la nu am daal ne mbokk yi nit dangeen ngeen ma moytu ci taalibe yi bu baax ndax man de ñoom rekk la am sëñ Fallou génn ci mbokk yi dugg ci taalibe yi kon ak taalibe rekk am solo kon nag sëriñ bi ñu ngi jël yooyee ñu jotu lim yépp jëndee ko taalibe gi gannaaw bu nu la nuyoo it nuyoo mboole mbokk yi fi daje te bokk ci Cheikhul Khadim ak nun ci bokkee rek ñu ngi leen di jottali sunu nuyoo di ko teg sab loxo bu ma nee Cheikhul Khadim rek jeex na ndax léegi-léegi dangay ngay dégg ñuy defi différence di wax naan ñu bokk ci bàll ak ñi naan ñi bokk ci maaram ak ñi bokk ci nàngam ak nàngam waaye li wér te wóor mooy doomi sëñ Tuubaa ak rakki sëñ Tuubaa ak doomi nijaay sëñ Tuubaa kun ciy tudd sëñ Tuubaa tax kon boo nee ku bokk ci sëñ Tuubaa doy na sëkk <clears throat> ci ni ko hiérarchie tëralee di nuyu le premier magistrat de la ville muy monsieur le maire monsieur le député maire Malick Fall di ko ñaanal bu baax a baax sunu boroom woyofal yéen bii mu ko teg ci barkeb sëriñ Touba ci barkeb weer wi ñu nekk ak ci bis bi nu jëm te lim ci yaakaar sunu borom defal ko ci la kaw yi njortam ak di ko sant di ko gërëm di nuyu itam imam bu baax a baax. di jël nuyoo boobu rek di ko sarale itam sunu diggante ak moom ndax maamam di Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana moo jàngal sama baay moo aybul xuduus ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Bachir mu Sëriñ Tuba di jël nuyoo itam di ko teg ci loxob Moustapha Guèye directeur Crous du sama wëllëre di sama xarit di ko ñaanal itam yan bi ko suñ borom yan mu woyof te yàlla toftal ko ci yeneen yu gën a kawe noonu itam di nuyu Samba Awa Ndiaye mboolem lu fi daje ci lu xeetu ci communicateur traditionnel seenu ñëw di ko teg ci loxoom di beral nag ak nuyoo ak ak cant ak ngërëm waa Safinatul Aman di leen xamal ni man maa amul seenu pay ndax nit ki la woo donte benn saala moo xam muy seconde moo xam muy tiers ci waxtu woo xamante ne sam xel ak sa yéene ak sa xol ak sa jëf du génn Sëriñ Tuubaa nit ki la dugal ci loolu amoo payam ndax lu dul lu baax rek lu baaxu ko gën waaye lu baax luñ fiy tudd mbaa yi gën yi ñu fiy tudd bu ci nekk rek ak bu mu mën a doon waxuma liggéeyal Serigne tubaa wala nekk ci toolam waaye di xalaat sëriñ tubaa rek moo ko gën ci ñun ñun murit waxuma laag nag di ko jëf kon man mii maa amul seen pay ndax xëy na jamono yi ngeen ñëw ci man mooy waxtu yooyee ñuy ànd di waxtaane sëriñ tubaa mbaa yu ni mel ak di waaj bis bi bu dutoon yéen mën na maa nekk ci leneen kon nag maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm te di leen ñaanal ak di sàkku ci yéen ñaan ba ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk li nu fi indi te bàyyi nu fi di ngërëmu sëriñ Touba yàlla suñ borom boole nu ko defal. loolu nag bu ma ko waxee xëy na ñu bari danañ defe ne bokkaale la ndax wa maa xalaqtul jinni wal insi illaa liya'budun waaye du bokkaale ndax ñun yàlla li mu yor li muy bari bari bari bari lu ci sëñ Touba amul wàll soxlawul ko te bun amee ngërëmu sëñ tubaa am ngërëmu yàlla sunu borom di nga gis nit ku jóg di dox ci yoon. nekk tegu ci siraatal mustaqim ci ni nu koy waxe di sàkku ngërëmul yàlla dund ba dee te du ko am waaye gis ku sàkku ngërëmu sëriñ tubaa nekk ci toolam liggéeyal ko ba wàcc ko am ngërëmu sëriñ tubaa te du amul ngërëmul yàlla loolu kenn mësu koo gis te duñ ko gis ba ilaa yawmi diini itam kon nag loola moom ñu ngi ci indik leeral bu baax ci fànn ko xam naa nag samay kàddu moom bu weesoo kàddu cant ngërëm daanaka lu ci des du bari solo ndax sëriñ Abdou Hakim mii kilifa jotaay bi mi ngi fi te tey moo fi teewal sëriñ Touba xam naa ne mën nañ ci fànn teewal fi ki ni wax borom daarul moxti ndax li yoon wi di yaatu yaatu fu ma dajeek waa kër sëñ Touba ci jotaay ba boo fa magee ci lu bokk ci Cerno Birahim borom daaru moxti laa fay teewal bu ma demee sama kër nag foofee nga xamante ne nii xëy na maa fa nekk mën naa faa teewal Serigne Touba kon Serigne Abdou Hakim moo fi Serigne Touba mën naa fee teewal Thierno li may xeebadi xeebadi te borom daarul moxti ku bokk ci bis bi la ndax dem gii sëriñ Touba dem wuy ji liggéeyal yàlla suñ boroom di fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru safar tax ñu di ko waajal laataa Serigne tubaa di dem Thierno la yabal te ba ko yabalee it ba dikkee sëriñ tubaa amu ci lu ko naqari. te mooy dil ay man di loxol nday joro kon kooku ku ko teewal war mën a bokk ca loole kookee nag maa ngi dégg léegi oustaz Mor di ko wax léegi ci sunu mbokk yi bàyyi koo Sarsara nga xam ne sa ñu bari nang wér na lu wér la sax ni Serigne Touba fa la jotee wér dul Maxuus te bi ci sëriñ bi jotee bi mu ñibbisee ca ndar la ko jox borom daarul moxti ndax laata muy dem ci géej gi jox na ko wérdu tijaan jox ko wérdu xaadir jox ko saaseel jox ko musabatul hashi ak yeneen ak yeneen yees mënta lim waaye fi ma ciy duggee mooy damay jox exemple ci moom ndax jamono yi tey fu ñaar àndee lu leen tàggale xëccoo njariñ wala xëccoo daraja mbaa xoolu mbokk moo koy tàgg moo koy yàq bu ngeen xoolee ci diggante sëriñ tubaak ak Thierno lu bari ñun taalibe yi danañ ci jàng ba mucc ci liy lore bay yàqal doomu aadama ndax jamonoy tey ji yooyu ma lim te muy yàqal doomu aadama dafa bari te yooyu yëpp daje woon seenu diggante ndax ma dib rakkam dib xaritam dib taalibeem bu weesoo maamoor Jaara mi nga xamante ne moog Serigne tubaa bokk ndey ak baay nit gën a bokk ak Serigne Touba Thierno Birahim ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. maam astawaalo moo jur maam jaara buso mu jur sëriñ Touba Amadou Soxna Buso mooy bàyyi maam astawaalo Amadou Soxna Buso moo jur maam sa Mbàkke mu jur maam Fatisa mu jur bi Birahim kon ñoom ñaar ay mbokk lan mbokk gënte jege lool waaye nu xoolee seen diggante nga xamante ne borom daaru moxte xamul woon ku dul sëriñ tubaa ci ndawam ak akuk magam ci nekkam akuk mujjam akuk wuuteem akuk léppam ba bi sëriñ bi demee bàyyi ko ci géej gi sëriñ bi demee ci géej gi bàyyi ko fi mu yoral ko njabootam taxawu ko liggéeyal ko ci yoon wi liggéey bu mucc ayib ba bi sëriñ bi dellusee fekkuwul dara yàqu fekkul dara loo xamante ne amee na ko lu ko naqari loole bu na xooloon mbokk ko loola do am na ku ma koy wax barki démb ne ko sëriñ Touba moo nekkoon ci géej gi di liggéeyal yoonu murid di liggéeyal suñu borom waaye ba mu demee ci géej gi na la bàyyi ci jéeri ji te ñaar yooyu benn mënu coon dem bàyyi sa morom te coono bu sëñ tubaa daj ci géej gi rek ngir yoonu murit am li mu bëgg Ceerno daj na ko ci géer ji ngir bu sëñ tubaa dellisee fekk fi li mu bëgg wér na loolee nag da cee am loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la ndax jamonoy tey jii ci ñun taalibe yi sëriñ si moo ëpp taalibe yi léegi addiskat yi ay sëriñ lan jànkati xaside yi ay sëriñ lan waxtaankat yi ci sëñ ay sëriñ lan ba ci màddaalkat yi ay sëriñ lan booleeg li sëriñ tubaa njaboote ñu sant mbàkkeeg lim seexal bis bu sëriñ sëppee taalibe yi rek problème am looloo indi problème bi tey nag te yoonu murit nan bàyyi xel bu baax ne ñi nga xamante ni ñooy occidentaux yi ba àddina sosoo ba tey moo xam ba ci jamonoy firawn pouvoir temporel pouvoir spirituel mësu koo arrangé mësta nangoo lëkkaloo ak moom bu ñëwee dalay raay ak di nax naxal rek mel na lu ànd ak yow waaye bëgg la bu sañoon nga wéyee ndax li ko mën a yàqal bari na ba ci jamonoy na ak yonent yi fi yàlla mosoon a wàcc ba ci jamonoy Serigne tubaab ba mu fi nekk li tax tubaab yi jël ko yóbbu mosunoo gis luñ ko mën a tuumaal te muy dëgg mosunoo gis luñ ko waxal mosunoo gis luñ ko jàppal waaye pouvoir temporel le pouvoir spirituel dul arrangé ci kaw loolu ku nekk xam na ni sunu réew yi rawatina Afrique de l'Ouest dañoo mel ne ku am indépendance waaye amuñu indépendance tubaab yéenu contrôlé ba tey ñoo yor sunu réew jamonoy tey jii. ba léegi tubaab yi luñ mën a def pour diviser yoonu murit ñu ngi koy def lépp lu tubaab yi mën ngir xàjjale yoonu murit ñu ngi koy def te bu ñu demee ba tàmbalee gis loo xamante ne wute nag lanu daan gis démb ak ki démb dafay bëgg a mel ne ñee ñi ngi bëgg am ndam te ñu bàyyi tout le temps di utiliser baatin doomu aadama du wax lu maîtriser wul gars yi saa su nekk bu ñuy wax ñu naan baatinu Serigne Touba baat baatinu Serigne Touba xamuñu ci dara. saayir si lañu xam dara te saayir si ñun ñoo fi nekk ñoo ko yor nan ko jéem a maîtriser teg ko ci yoon te bàyyi baatin bu dul loolu bis bu li yàqoo rek lu bari dana yàqu te Sëñ Tuubaa lenn mënta yàqu buñ demee ba jamonoy tey ji bu njëkk Cheikh Ibra Fall bu gisaan Serigne Touba wala lu bokk ci Serigne Touba ak lu mu tuuti tuuti ak lu mu ndaw ndaw ma ñëw jërëjëf lu mu ndaw ndaw lu mu ndaw ndaw dana ko jox cër boo xamante ni kii la mu yor dereeti Serigne Touba tax mu jox ko ko buñ demee ba tey jii ñuy gis koo xamante ne dañu naan Cheikh Ibrahima jur baayam moo jur maamam atta na nekk bitim réew di def ci ay vidéo di saaga ndey lu bokk ci Serigne te ëllëg mu mën a doon Serigne Touba problème buñ demee ba jamonoy tey ji ñi nga xamante ne nii dañ leen di mbu dañ leen di wooyee njabootu Serigne Touba di seexi Serigne Touba Serigne Touba jur defar seeni maam. ñu nekk fii ci kaw suuf seeni maam àndoon ak maam yi ñu fi nekkal Serigne Touba tey seeni bàyyi àndoon ak bàyyi ñu fi nekkal Serigne tubaa tey te tey fu fekk lu nekkal Serigne Touba ñu bëgg koo def mborom mbaa ñu bëgg koo gën a kawe problème am na. te looloo ngi jëm kanam mi ngi perse na seetaat doxalan wi te defar ko borom daarul moxti wanaate nañu ci weneen yoon ndax keroog bi nga xamante ni ñeent fukki guddi ku tedd ki weesu na fii ci njaareem dafa yónnee ci sëñ Modou Moustapha na ko na ma dajeeg yéen Touba. daje ba nag dama bëgg mboolem ñi ñuy wax mbokk ci yoon wi naa leen fa fekk ña ca mag ñi ñuy wax doom ci yoon ci yoon wi ña mag naa leen fa fekk ñi ñuy waxi taalibe ña ca mag naa leen fa fekk jotaay ba sëñ Modou Moustapha nga foon sëñ Fallou sëñ Basiiru ak sëñ baar sëñ Mbàkke Bousso nga foon ak sëñ daam Abdourahmane Lo ak Cheikh Ibra Fall bi borom daarul moxti yi agsi ak baaguy dundale indaali jox ko sëñ Modou Moustapha ne ko addee sëñ Tuubaa te Cerno baayam la nijaayam la moo ko yar moo ko jàngal bu koy defal loolu bëgg naa wone aw yoon mu daan ne waxtaan wi tey wii ci yow mii mu safaa laa koy tàmbalee toogal fi sa baay toogoon tey jéem la mu daa def boo melut ne sa baay nit ñi teg la fan tegoon sa baay te na nga xam ne yi li fi dëkk mat a xëccoo doy nit ñi moo mat a xëccoo ndax boo doyee nit ñi foo ne ñu fekk la fa daan ko Ibrahima Fall. mu ne ko mbàkki sama borom mu ne ko waneel aw yoon ndax ku daa gis ba gisatul kookoo mata wanu yoon lëndëm gi fi sëriñ tubaa bàyyi woon ba muy dem ci géej gi gu tey gii moo ko gën a tiis ginnaaw ba kenn xamagul sëriñ tubaa yaa ko wane woon ba ñëpp xam ko waneel aw yoon joxoñ ko sëñ Modou Moustapha Cheikh Ibra tàllal koy loxoom jébbal mu daat ne Mouhamadou Fadel yaag Mouhamadul Bachir ak Mouhamadul Amin dama bëgg ngeen xam ne man ak maam Cheikh Anta mi sëñ Masamba mbooleem lu nu am ci toppoon ci sunu mag ju baax ja lan ko amee loolu tax na tey ñun njabootug sëñ Mbàkke Moor gi xajatuñ ci dëkk sax waxuma laa cib néeg topp leen ci seen ginnaaw mag ji bu seen mag ji melut ne suñ mag ja it seen mag ji gën suñ mag ja baay loolu nag bis buñ ci wàccee lu toll ne tarfatal ay ni rawatina jamono ji daanu ko gis te ñu ngi koy bëgg a wàcc yii bëgg a xew léegi ñu di ko xewal bëgg koo jël formali formaliser ko bëgg koo indi ci lu bees yoonu murit bokku ci nan doyloo sëriñ tubaa te doon ay taalibe sëriñ tubaa te buñ bëgg lu dul ak taalibe bëggug ja ak bëggug wilaaya ak bëggug lu nekk lu ñàkk tey ji moo nu ko xañ te dara ja akuk wilaaya li ci sëriñ tubaa am te jox nu ko doy na sëkk buñ bëggee leneen rekk danoo goreedi ndax lii nu sëriñ tubaa defal waxuma la li sëñ Basiiru doon wax daal ne Moodu Maxtaar mu ne ko Mbàkke mu ne ko sëñ tubaa waxuma la lim nu dig yomal xiyam te du fomm waaye lii mënu defal àddina rek jar na topp ko ak goreek moom ba faw bis bu nu bëggee leneen rek danoo goree di ndax amu ci kenn ci ñun koo xamante ne nii boo bàyyi sëñ tubaa sëñ tubaa yëg ko boo génnee ci yoonu murit yoonu murit wàññi ko mbaa wàññi yoonu murit dara baatub liggéeyal sëñ tubaa baat bu ñuy utiliser la rek ngir danoo xamul ban baat lañ ko mën a wutal waaye kenn defalut sëñ tubaa dara ñun suñu bopp la ñuy liggéeyal ndax ku ci nekk bi ngay ñëw di jox sa bopp sëñ tubaa sa bopp a tax kenn ku féete sëñ tubaa fenn amut kenn ko defal sëñ tubaa lenn amut ci ñun ñii kon nag nan góorgóorlu te gore te sàmmal sëriñ tubaa léemu waxuma la lii mënu defal àddina waaye bu dutoon moom yomal xam ñun ñëpp ñoo ña ngay xam ba matti sa waree du sunu ngor du sunu jullite du sunu jaamu yàlla du suñu mbaax du sunu dara moo nu mën a muccal ëllëg yomal xam yaakaar sëñ tubaa rek nu fa mën a muccal kon nag nan topp sëñ tubaa te gëm ko te wóolu ko te yaakaar ko te doyloo ko te ñun waa njaareem ñu góor góorgóorlu am na ci loo xamante ne baati naxee mbaay rek la dafa am lu mat a seetlu sëñ tubaa dañoo ne fii dafa ne jaar yéemu tout le temps dañuy ndamoo boobu baat mais il faut savoir analyser dans la vie c'est vrai que sëñ tubaa léppam lu positif la amul dara lu négatif waaye actuellement nii ku fi jaar di nga yéemu ñu bari dañuy wax naan comme sëñ Tuubaa woon ba jaar yéemu la waaye agseegul dina ñëw moo tax lépp dina baax mais fi mu toll nii ku fi jaar yéemu parce que. tudd na leen te doon jàpp ci liggéey bu baax a baax di ñu dëgëral waaye di ñu ci liggéey bi ñu ngi leen sant bu baax di sant mboolem daara yi alxuraan yi nga xamante ni xëy si nañ fii jàng fi. lim bu takku ñu toll ci juróom benn fukki kaamil ak ñett ñu ngi leen sant ñoom ñëpp ñu fi yem doon durus xasida yi jëruñu lim bi waaye ñoom xam nañ ni lépp liñ doon def addi sëñ Tuubaa lañ ko doon def ñoom ñu ngi leen sant bu baax baax waaye dinañ taxaw foofu nag ci waa daara kaamil dafa am jëmm joo xamante ni mbooloo mi du ko fàtte ba mukk mu di Baye Dame Diop nga xamante ni bii saa su ne li ñu daan wax mooy jàpp leen ni maa ngi seen kanam kanam maa ngi seen gannaaw dinaa leen jàppale zahiran wa baatin kon suñu borom def li ko soob ci moom ñi ngi ñaan Serigne Touba yokk ay leeram bu baax a baax te taas ci barkeem waaye duñu fàttee jëmm joo xamante ni bii. lii di wàllu sonorisation bis émission bu njëkk ba boobu daaw bi mosu laaj dara ñu koy wax seex ñing ñu koy dàkkaleen télé seex sonor nga xam ne mosuñoo laaj dara lépp moo ko daan takk suñu borom moom it dogal li ko soob ci moom yàlla ko suñu boroom xare àjjana te sàmmal ko ñi nga xam ne ñoo bàyyi gannaawam du ñu fàtte tamit. ku ñuy wax mbaar koru Thiam ndax da doon mag moo xamante ni nii ñun ci moom lañ gëme ni nit dina def ci ci ci mbir te Sëñ Tuubaa rekk tax bi ñuy jàppale man mi bu ma tasa woon ak moom du ma xam dañoo ñëw wax ko rek mu ni dem leen bërëb sàngam bu ngeen demee la ngeen fa yittewoo yépp ngeen jël ko te mënuma mun xaw ma xaw xamati mbooloo mi kenn kon kooku jëf te sëñ Tuubaa rek moo ko taxoon. suñ boroom nag moom moom mooy dogal moo dogal li ko neex ci moom moom it yàlla na ko suñu borom xare àjjana ginnaaw loolu mbooleem autorité yi fi toog sëñ Malick Fall dañ koy bàyyi ak sëñ ndax wax dëgg yàlla ku ñu jàppale la ku ñu wéttali la. ku ñu yërëm la ndax dafa am am solo lool ndax kilifa bu wàccee mën a toog ak yow jataay di la wax di la xelal di la digal ba lii nga xam ne moom lay def mu di wàllu politique muy daw sax di taseeg mbooloo mi ñu koy séen ndax nee na day bañ ñu yaakaar ne day politique mbooloo kon loolu moom dafa jëf moom it te sëñ Tuubaa rek tax sëñ Mahfous li mu wax sëñ Masamba kàddu yooyu mu wax jàppal ni mbooloo mépp ñoo moo ko wax ci sëñ Mahfous kon sant na la bu baax a baax suñu imaam nag moom it dañ koy sant bu baax oyof gi ak laabir gi lépp matale na te li nga wax léegi ñun daayira njaarim yépp war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax comme ni ko waxee suñu Abdou daan ko waxee noonu mu ñu góor góorlu ci sàkku xam-xam loolu ñu ngi la ci sant bu baax jël ci gërëm gouverneur ñu ngi koy sant di sant préfet di sant commissaire ndax moom it wax dëgg yàlla Pastef gi matal na sëkk teel nañoo ñëw te wax dëgg yàlla yéex nañ fay jóge ñu ngi leen sant ñoom ñëpp sapeur pompier ñu ngi leen sant waaye di sant ki nga xam ne mooy médecin chef départemental nga xamante ni bii yabal na fi médecin ak infirmier. boole ci ambulance di taxaw mbokk taalibe yi ñu koy wax docteur Al Gueye Ngom moom it ñu ngi koy sant bu baax waa Croix Rouge du leen fàtte ndax dañoo teel a xëy 9h fi leen fekk ci effectif boo xamante ni bii toll na ci 80 personnes yoo xam ne indi nañ ko ngir taxawu nit kon waa Croix Rouge ñoom it ñu ngi leen sant bu baax ak ñi nga xam ni ñoo di waa Cœur Rose mu di ñoo xamante ni dañuy yëngu. ci wàllum san santé ak yéete ci wàllu wér-gu-yaram ñoom it ñu ngi leen sant bu baax di sant mbooleem presse boo xamante ne bii teew na fi di jàppale kuréel gi ci liggéey bi ci yaatal ngir mu gën a fés ci biir réew mi ak ci bitim réew suñ ci tuddee Bichri TV tudd ci 2S TV TFM Touba TV Lamp Fall TV waaye di ci teg ñi nga xam ne mooy ci internet yi. mu di Bawol Times Sen Zoom Asalihiya ak rajo yi nga xamante ni bi yëpp jàpp nañ ci liggéey bi mu di Ndefleng RTS Moubarak Walf Bawol FM ak Touba Fall FM ñoom it ñëpp ñu ngi leen sant bu baax baax di leen ñaanal së sëñ sëñ Touba taxaw leen ba liggéey bi nga xamante ni ñoo ñoo koy def ngir yaatal li nga xamante ni moo di njàngaleem sëriñ bi mu suñu borom taxaw leen ci bu baax a baax. waaye tamit danañ baral ak jant muy délégation bi nga xamante ni ñoo jóge woon Bambey nga xam ne ñoom ci caravane bi lañ àndoon ba egsi fii waaye mbooloo mi xam mi moo tax ñu delluwaat ba jot jotuñoo teew ci jataay bi ndax waroon nañ fee fekk ak kilifa yi nuyoonte ak ñoom saafantoog ñoom ndax maire Bambey moo leen fi yabaloon te ki ko jiite woon moo di Soxna Ndiaye Mbacke ñoom it ñu ngi leen sant bu baax a baax sëñ Diaw Baas nag ñi nga xamante ne bii noonu la ko mu sàmm waxee moom it dañ koy dugal foofu ci jant gi. wax dëgg yàlla li mu wax moom dafa leer nañ dafa ne day bindu jënd carte membre ngir bokk ci liggéey bi te laajuñu dara noonu mag mag Samba waxee dañ lu ngeen lu des sa place ba yéen a ko fa bàyyi waaye su ngeen liggéey lépp ñëw ci gàttal daal ngir tënk ndax jotaay bi yàgg na ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di di ñaan sëñ Touba gën ñoo taxaw bu baax a baax waaye kuréel bi nga xamante ne bii moo di Safinatul Amaan di comité d'organisation bi mboolem ñi fi nekk di ay section te ahlu safara bu kër Cheikh nga xam ne lépp luy ndox ci bis bi ñoom ñoo ko jot sasoo jaayante ko waa ahlu tuxfatu ñoom it lépp loo xamante ne lu sedd la ñoom ñoo ko sasoo woon waa kër sëñ Bay Sarr kenn ku si ne xam na ni jàpp nañ bu baax a baax ci benn yi ñu doon berndeel ñi nga xam ne ñoo doon jàng kaamil yi waa kuddi ci seen soxna yi nga xamante ne bii ñoo nekkoon sa waañ kenn ku si ne xam ne waañ lu metti la lu tàng la waaye loolu ñoom ñëpp dañ koo muñ liggéey def ko addi Sëriñ Tuubaa kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp ñun loolu lañ amoon ci loo xamante ne bi ñi ngi koy wax mu di ndokkalante rek Sarsara te di ndokkalante rek te Sëriñ rek tax waa Sarsara moom moom it ñi ngi leen sant baax ndax ñëpp sant nañ leen teewaay bi rek rëy na lool ci ñun waaye teewaay bi de sëñ bi sëñ Abdou Hakim ak sëñ sëñ ñu fi teew ñëpp na ngeen ñu ñaanal liggéey bi nga xam ne moom la ñuy sumb ci barke Sabsara bi nga xamante ni fële Sëriñ Tuubaa jote woon wérdu wi na doon liggéey boo xamante ni fay gi day tàmbalee ren ñun ñëpp ñu yëg ko yokk zaahiran wa baatinan képp ku fi def dërëm ak ki fi def junni lépp ñu yem ak pay Sëriñ Tuubaa nangul ñu lépp sëñ bi ñu ngi jégalu bu baax a baax di jub bu baax a baax gars yi dañoo baax rek jiital ma ci kanam may doxi yónneen waaye na leen wóor ni ak ndonga dongu lañu dañuy doxi yónneen rek saa suñu gisee ba xool ni nekkatuñ ci yoon wi ñu ngi sàkku ngir jëmmi Serigne Touba ñu jël ñu fi jël keneen koo xamante ni moo nekk ci yoon ndax liggéey lii du nguur du nguur ji jëw nañ bu ñu la ko tuddee nekkul ni dañoo baax di wax naan dañ lay xooli Serigne Touba waaye na la wóor na ni doo Serigne Touba da ngay waxtaan ak nit ñi di diisoog ñoom te Serigne Touba rek tax ñu ngi lu baax a baax di tuub di wàccee fépp kàddu yi lu ci dëng ci man la lu ci jub ci sangu su baax si kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba déwén ak jàmm jërëjëf alhamdulilah saxabi sabi warahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di jiital ci sunu nuyoo ak eh, imaamul akbar sëriñ Maxtaar Jóob ci ak waay fam ci ak bëggam lu baax ci ak laabiroo mu ñëw ànd ak noonu liggéey bi di ñu yit sama bokki bopp yi te bu ma waxee sëriñ Mouhamadou Mahfous danaa ci mën a boole mbooleem bokk yi nga xam ne ñoom laa bokk seen xadim dañu teew fi te seen yitte ak seen bëgg lu baax ak yéene ku ñu am ci biir liggéey Sëriñ Tuubaa tax ñu ànd ak bokki taalibe yi liggéey bépp di ñaan ci barkeb Serigne Touba Serigne bi nangu leen liggéey bi te sàmmal leen ko ci euh, mu ko waxee ak daraja ji nga xam ne yàlla jox na ko ko waaye lépp mu nëbb ko laq ko ngir jiital ak taalibe ba dund ak ñun bis bi moom it ab nuyoom nuyoo bi ma nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu administration bu ma ko tegee ci loxoom dama ko jottali ñëpp moom ak Moustapha Guèye ñu fi teew ak mbooleem di bu baax ak sant mboolem ñi nga xam ne ànd nañ ci liggéey di ñi nga xam ne ñoo leen ci doon jàppale du ko jiitu ngir tasaare yi muy presse bi nga xam ne ñoo fi teew ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ñoom di leen jàppale ci wàllu sécurité ak wàllu wér-gu-yaram ak mboolem koo xam ne daal jàpp nga ci liggéey bi ngir lu ko yéwéne la ñoo ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di ñaan seen jëf ji yàlla nangu leen ko di barke Xaadimu Rasuul di santal yàlla bu baax moom mi nu may taw feexe nu def ko ay at ba fekk waat ko ren te lépp di ci coobare kon noo koy sant bu baax di ñaan mu may nu it nu fekk ko ay ati at hmm. di sant it comité bi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ci pëstéef bi ak yitte ji ak taxawaay bu réy bi nga xam ne def nañ ko ci bis bi ngir fexe ba lépp dëpp ak bëggu sëriñ bi lépp di lu sëriñ bi gërëm ndax kuy jëfal ku tedd ki ku baax bi war ngay bàyyi xel jëf ji mu dëpp ak bëggam mu dëpp ak ngërëmam ngir ak pay te yëg naa ne sonn nañ ci lool ñu ngi jëm seen kem kattan donte la mbooloo jafe na lool nga jaarul leen ci wenn xàll waaye nag yitte jim laaj yëg nañ ne def nañ ko ci kon nag jërë ngeen jëf taxawaay bi mat na yitte ji mat na yàlla leen suñu borom boole nangul lépp lu ci rëcc wala jumte yàlla na ko yàlla jéggal te sëriñ bi nangul ñu ko ci matam ak ak yërmande di wax na it alhamdulilah ndax bis bii nga xam ne moo nekk ci di safar fukki fan ak juróom-ñett di ndigal loo xam ne Seexul Xadiim mënu ko digaloon ah bu fekkee yàlla dafa def ñun tawféex yi yëg-yëg boo xam ne bis bi fi mu toll ci ñun ba mënatuñ ko téye ñu ne kat bu weer wi feeñee dana ñu def feeñal suñu yitte ak suñu yéene ci bis bi ngir yëg ngir nit ñi yëg ne weer wu tett weeru ngëneel agsi na ñu defe ko it ci anam wu bu daloon xel ngir la ci jiitu woon mooy jàng alxuraan mi nga xam ne jiitam nañ ko te ku ne xam diggante Sëriñ Tuubaa ak alquran waaye it ñu teral ñooñ al alquran nekk xam Sëriñ Tuubaa ak ni daan def ñooñ alquran ci teraanga ñu ñu boole ci xaside yi ak di tudd yàlla boobu liggéey sunu xel dana dal lool ci ne liggéey bu Sëriñ Tuubaa di nangu la ngir yitteem ju réy ju mu amoon ci alquran waaye nu mu daan terale ñooñ alquran kon noo ngi dalal sunu xel bu baax ci jëf jooju di ñaan sunu borom jëf su suñu borom doxalin ñu ko ci jëf jooju ngir mu nangul ñu lépp ci barkab xaadimu rasul cant gi nag moom ñi ma jiitu ñëpp alhamdulilahi rabil alamin jottali nañ ma ko ba na ma ko yéene woon dana doy ci seen kàddu yooyee cant googu di cantuk Cheikh Mamadou Fall mi nga xam ne moo fi nekk nekkal fi mboolem njabootu Sëñ Tuubaa fii ci njaareem te ñun ñëpp ñu di ko xoole bët boobu mm-hmm. loolu moo sabab sama teewaay fii ngir ba ndigal li jaaree ci ay kilifaam ba agsi ci moom mu jox ma ndigal wax ne naa ànd ak yéen liggéey loolu moo waral jataay bi kon li may wax lépp ci turam laa koy waxee mu koy waxee ci turu ay kilifaam kàddu yi nag li ma ci sant yàlla mooy dafa mel ni li ma bëggoon a wax nga xam ne moo nekkoon dëgg-dëgg sama yitte al imaam sëriñ Maxtaar jottali na ko ngir li mu wax ci xam-xam ak ni sëriñ Tuubaa digle woon xam-xam ni ñu safaan bi di dale ndax yi xew ak yi ñuy wax ñàkk xam rekk moo ko waral waaye bu xam jiitu woon dees ko def ndax Serigne Touba loo ko tudde lu muy Abdullahi loo ko tudde lu muy jëwriñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tur woo ko wooye rek yaa ngi koy tooñ ndax loolu la taamoon te moom la waxoon loo ko jàppe lu may loola yaa ngi koy tooñ li ñu sonal Euh, sëriñ Mahfouz wax na ko léegi mooy dañu dugg ci mbir moo xam ne dañ koo xamul muy lu jëm ci mbirum baati wala leen nun li ñu suñu bopp sëriñ Tuubaa tamit dëgg ci ñun nañu fexe ba lim ñu di ko def ko bàyyi la ci def suñu yoon wuru caa nekk waaye dañ ko fee bàyyi nag bëgg dugg ci yoo xam ne lam ñuy jural ci ak bokkaale rek lañu la ñu jëmee wala yow sibila te mboolem yii ñuy wax mag ñi nga xam ne dañoo jaayante woon ak sëriñ bàyyi seen lépp seen pas-pas ya dee day wee sax mënuñu leen caa àgg te tur yi ñuy wax ak yii ñuy wax kenn mos koo dégg ci ñoom kon loola du dara lu muy ak sànkute ak réer rek la kon nanu góorgóorluwaat bu baax delluwaat xam ne danoo jox suñu bokk Serigne Touba tamit dëgg ci ñun kon nanu fexe ba lim ñu digal na doon suñu yitte Serigne Touba lim ñu digal la ca aju ak lam laaj def ci yitte doy na sëkk soxla def ci yitte ba xam ko ba jëfe ko na na dëppoo ak bëggam doy na sëkk soxla la muy bañ dañu ko tere ñu jéem koo xam ba wattandiku ko doy na sëkk soxla yenn nit ñu dugg suñu yoon wuru caa nekk kon maa ngi soññ ndaw ñi bu baax ndax ëpp ci ñu fi teew ndaw lañu nanu góor góorgóorluwaat te jéem a fexe ba xam sëriñ bi xamuk bëggam xam ne ab taalibe bi li ko war mooy jëfe ndigal bàyyi tere yee ca des yoon muru caanak darajee sëriñ Tuubaa digganteem ak a a xam nañu toll amul loolu buñ a li ñu sëriñ Tuubaa digal ñu sax ci jéem a doon ay taalibe di jëfe ndigal te wattali ko tere nu xam ne it ndigali sëriñ Tuubaa li ci jiit mooy ndigali boromam tabaaraka wa taala moom la ñu daan soññ sëriñ Tuubaa andi lu andi lu ñu lu bees la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund ak saxaaba yi rek moom la ñu sëriñ bi andi yee salaat ko ñu war caa tegu kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax jéem a jéem a seetluwaat doxin yi jéem a jéem a jéem a defaat yitte ci ci ci sëriñ bi xaw ak bëggam ñu jéem caa sax loolu mooy mooy tawfeex ñun mooy ndimbal ci ñun te it ñu xam ne sëriñ Tuubaa de ko sell la ko sellal la ko yàlla sellal la lu sellu du bokk ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah